Pape Diène mi ngi Touba TV léegi. Mhm. mais ñëw na. ak mhm. ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. li daa doon wax sànq. ci li mu daan jëflanteeg doomu aadama yi. te borom këram du ko yëg. ndax ku nekk xam na ne bugaan ndaw la comme ñun. te ndaw lu ne rek deretam day xaw a tàng. yenn nga gis sax ay xëccante ci kàddu. Mm-hmm. da nga gis ni mu ci duggee di di defar. asalaamaaleykum. téléspectateurs yi Sen TV. mos bu Ouest Foire. gannaaw bu ñu leen Alsaan Alsaan ñoo ngi lay ziar bu baax a baax lu xew foofu. maa maa ngi lay nuy bu baax Ndiaga maa ngi leen nuyu bu baax. Euh, mbooloo mi foofu ak euh, lan lan moo fa jot a xew foofu. waaw euh, gannaaw bu ñu ñëwoon ñëpp euh, di jaale ñëpp euh, di wax ne nag li fi xew mooy tiis ak naqar bi nga xamante ni Sénégal moom la yeewoo tey gannaaw génn àdduna ki nga xamante ni mooy Momy Dany Seck Guèye bi nga xamante ni moo génn àdduna béeg ci guddi daanaka ci fajar ay boru 3 heures du matin jamono ji ñi àdduna nag ngi fii nga xamante ni mooy ci jumaa bi nekk fii ci Ouest Foire fii nag la ñuy fas yéene amal li nga xamante ni mooy levée du corps bi loolu nag la ñuy tàmbali di wax ni nag euh, jamono ji euh, comme ni nga ko waxee rek njaga daanaka fii oto xejatu fi nit ñi macha allah mbooloo mu bari bari teew nañu ñëw rek ngir ànd ak ki nga xamante ni mooy euh, moom mi gunge ko fi nga xamante ni mooy këru dëgg jamono ji ñu àddu nag ki nga xamante ni ñu ngi waaj a julli ci biir ndax imam bi yegg nañu daanaka mbooloo mi def nañu def nañu fi daaw si ñaanal nañ ko jàng nañ fi tamit xarnu bi daanaka ci fu ay kilifa diina yu am solo di wax ni nag jamono ji tamit euh, ñu bëri teew nañ fi nag ah, euh, suñu limee rek dañuy daal di jum mais ràññee nañ ci ñu bari bëri ku ci mel ni nag euh, ñi nga xamante ni mooy ñoom Serigne Mbacké Ndiaye gis nañ fi ay responsable politique yu bëri ñu mel ni ñoom maître Tine opposition bi ñu nekk ci pouvoir bi daanaka Euh, bëri nañ fi macha allah ñi nga xamante ni teew nañ fi ngir rek euh, euh, bokk ak nga xamante ni mooy Bougane génn xar bi ndax umpalewu leen dafa am lu leen boole tamit mu di géew bi waaye nag lu wees loolu gis nañu Sénégal ñëpp benn lañu tax nag tey gis nañ ko véritablement ñëpp teew nañu fii noo xàmmee ku fi bokk mu ànd ak ku mu àndalul daanaka ñëpp a ngi fi njaboot gi mi ngi fi gis nañu ki nga xamante ni mooy waajuram rawatina ki nga xamante ni mooy jaaga kinne moom daanaka sax gis nañ ko mu génn ndax moo ko defar moo def lépp daanaka ànd ak ay rakkam ànd ak doom yi daanaka ñoom ñëpp teew nañ fi di wax ne rek kon jamono ji ñu ngi julli bi buñ jullee ba pare nag daañu amal li nga xamante ni mooy jullee néew bi buñ ci noppee nag soo ko yóbbu fi nga xamante ni mooy eh, fële ci armée la ca yof ndax foofu la ñu fas yéenee foofu la ñu ko fas yéenee rob kon bokk di wax ne rek eh, njaga Euh, comme ni ma ko waxee rek Sénégal nag moo ñàkk ndax tey boo xoolee li nga xamante ni euh, dégg nañ ko nii ci ay seede jëm ci ki nga xamante ni mooy woy dawlu bi mun nañu am yaakaar ci moom ndax woyofam tabeem waaye am cër bu mu jox doomu aadama te loolu yaakaar naa lu am solo ndax ku amoon respect la ci doomu aadama ñun mi nga xamante nag ay employé lañu daan jëflante ak moom lekk loolu yëpp mun nañ ko sedda ci moom euh, ndax amul benn yoon bu nga xamante ni rek nit wax na ci moom ne tey moom i def na mali wala wax na mali à chaque fois respect la ci àndal euh, kon bokk jamono ji sax responsable yaa ngi soog a si ki nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Gadio mooy dugg noonu moom mooy soog a yegg si euh, kon bokk ñëpp ñu ngi waajal li nga xamante ni mooy julli bi amaana xam naa incha allah dinañu fexe rek ba am ay recueillir quelques euh, réactions ci ñi nga xamante ni euh, mooy yenn ci responsable mais gis nañ tamit euh, njaboot gi àndandoor yi ànd jàmm yi nit ñi daanaka fii Euh, fees dell def ci biir jumaa ji ñëpp a ngi fi euh, fas yéene rek euh, gunge ki nga xamante ni mooy moom it Seck mi nga xamante ni moo waral teewaay bi fii tey gannaaw bu mu laaxoo gannaaw bu mu dëddoo àdduna kon bokk ñu jàpp ni aussi ñi nga xamante ni mooy les responsables du groupe daanaka ñëpp ngi fi tey daanaka liggéey bu ndawul moo amoon ci rédaction ba ndax ki xol yi dafa daal di fees ba tax nag ñëpp ñu ngi fi nga xamante ni moo fi ne kon bokk ñu gis ni waaw euh, comme ni nga ko waxee rek gis nañu mbooloo mi euh, daanaka ñëpp a ngi ci biir xam naa dañuy jéem a doxantu tuuti xool ba xam euh, yenn ci ay responsable yi nga xamante ni ñu ngi ci fii ci biir ngir rek ñu ànd ak ñoom xëy na amaana jël quelques réactions ci ñi nga xamante ni mooy sénégalais kilifa gi gannaaw sëñ bi gannaaw bu ñu la nuyu gis nañu yaa ngi teew nga fi tey yan seede nga mën a yëkkati jënd ci wooy daaw jigéen ju baax jigéen ju am diine jigéen ju bëggoon famille jigéen ju fonkoon ñaari waajuram koo xam ne moo mën naa ne sax moo fi nekkoon suñu yaay parce moo fi doon taxaw kom taxaw yaay ñu mosaan am soxlo duñ dem ci kenn ci moom la dem te buñ demee saa ñu ko tiisee suñu soxla mu jàpp ci ak lu mu ci mën dañ nag yàlla ak dogalam jaam ak pexem mais suñu borom bu soxlaa rek jaam ñàkk di ko di ko di ko di ko jaale média yëpp nag soo xëy na sama xol moo neexul ndax man sama yaay la mun naa ne sama yaay la ci man parce que dinaa am daan naa am soxla diso ko doomu aadama di ko yëg man ak moom ak yàlla rek daan ma jële fii kër papaam yóbbu ma mook jëkkëram ba sama buntu kër kon tey ji ñu ñoo ñàkk média ñàkk jigéen ju am diine jigéen ju buggoon waajuram koy ñaanal yàlla xare ko àjjana fi daw si jërëjëf kon mbokk mu nekkoon ci benn ci ay sede géeg ngeen ko daanaka xool yi daanaka fees na euh, ni ñi leen di des sax ñu tura ay rangoñ euh, doon lu bëri euh, ñu ngi ràññee tam ki nga xam ne élage Hadj Malick daanaka mi ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi ci biir mbooloo mi ci biir daanaka jumaa ji daanaka fees na njaga ak Seyda ñuy wax ni rek kon ba léegi nag nit ñaa ngi fi xëy na bu fekkee ne da ngeen soxla antenne ñu delloo leen ko mais ñu jàpp ni rek nii kon bokk ñu ngi ñu ngi wéyal li nga xamante ni jàng yi ci biir ñu ngi koy ñaanal buñ ci noppee nag incha allah xam naa dinañ jublu ci li nga xam mooy julli bi laataa rek euh, euh, jëm fi nga xamante moo ci diwaan Yoff kon ñu delloo leen antenne bi en attendant ñuy ñëwaat euh, ngeen garde ñu en ci li nga xamante ni mooy xew fii ci jumaa bi rawat na fii jumaa Ouest faar bi nga xamante nag fii lañ fas yéene amal li nga xamante ne mooy levée du corps bi Absa Seyda jërëjëf Alassane Balde moom it jàmbaar la lool. moo nga ca moo nga ca fële ca jumaawu West Foire fi nga xame fa la ñuy waajalee waajal gu mujj ki nga xam ne mooy moom i daani géey ci ngeen corbeya bi nga xam ni moom la alsaan dendal. Mhm. buñ ko waajalee ci lañ koy dugal jëm ak moom fële ca yoof mhm. bala maa joxaat passement wala ma joxaat perlam ak yaa Seyda ma bàyyi xaadim am nga foo nekkoon. Euh, ñu ñëw mais alsan tamit incha allahu nag ñu wutal euh, nit ñi nekk foofu euh, ak autorité ya fa nekk kenn ku nekk wax ay seedeem parce que wax nañu ni maali gàkku moo nga fa wax nañu ni Cheikh Tidiane Gadio moo nga fa wax nañu ni pouvoir ak opposition ñëpp ñoo nga fa wax nañu ni soppey des médias yëpp ñoo nga fa wax nañu ni militant wu gëm sa bopp yëpp nga fa wax nañu ni Sénégal yi nga xam ne rek mm. dañoo sopp ki nga xam ne mooy Bougane wala sopp des médias wala sopp moom yi daani te mosuñu koo gis sax euh, ñoo nga fa kon kenn ku nekk rek euh, seeni kàddu baax na ñoom it ñu yëkkati ko euh, ma bàyyi la nga yeggalee bala maa joxaat Père Lam ak Ousmane dëgg la njëgal li nga wax dëgg la moom yi de moom yi ñëpp lu weesu Bougane coon ay wëlëreem dinañ ñëwal moom yi waal yi ay wëlëram dinañ ñëwal moomi kon moomi daanaka ñëpp a koy ñëw. te eh, faatu gi fekku fi eh, waali. dafa fekkoon mu voyagé. voilà moom it am na lu ko naqari. lu lu lu ko metti dina ko am ko metti am na lu ko metti yàlla nag moom kenn du xëccoog moom. déedéet euh, te moom soxna si rafetal na ba dem comme ni ko doon waxee léegi. ndax boroom këram ndaw la ndaw moom li ñu koy waxee lu mu yàpp wi lu mu duuf duuf ra tax te deret bu tàng yor. Mhm. yenn saa nga gis fii ci kër gi. du ñàkk ay xëccantoo yu am sax si diggante moom borom këram ak nit ci kàddu dangay gis mooy jaar ci suuf rek seralaat lépp mm-hmm. lépp lay seral ndax day nitu jàmm mm-hmm. di nitu kersa waaw di nitu kersa man daawul jaar sama tur njaka tonton ci am rek la ma doon wax te war ma lu am solo la war ma dafa am solo nit mën ngaa jaamu yàlla boo dugg àjjana te doo gis yàlla dañ ne yàlla war ma mooy tax nga gis ko waaw ah, war moom mooy tax nga gis ko wa man yuazim urumatullahi fa huwa waaye inda rabbi waaw fa muy amee solo foofu la amee solo moo tax mu am solo fa yàlla mhm. waaw kon nag du ñu man lu dul rek ñaanal ko yàlla mhm. Mhm. ñaanal ko yàlla ndax loolu rek lañ ko deseel macha ndax ku si nekk rek seet seeq na ak yow teranga lu mu tuuti tuuti tuuti seeq nekk seeq ak yow teranga man li ma daan dajeeg moom bëriwul parce que li ma daan boole moom ci liggéey mooy producteur extérieur yi indi série yi fii. Mhm. ku fi ñëw daanaka demal ci Thiam. nga visionné quoi soo ñëwee may visionné xool mu ne mbaa saaga amu ci ku yëw la woon mbaa saaga amu ci Thiam. Mhm. ah xoolal ma bu baax tonton ndax bëgguma après ñu naan seen TV ñu ngi fay saaga wala nangam même bu mu saan am sax lu rëcc. Mhm. da ngay gis sax mu woo ma téléphone wala mu envoyé ma message. li jàll démb de gis naa benn waay nee na nangam yenn saa sax nit ñi duñ ko graawal. waaye moom fa mu koy toll pour wane degré yiw nit ki. dafa dafa yiw. waaw dafa yiw. dafa yiw. jërëjëf waaw nit bu bu bu bu bu xol bi rafetee. Mhm. maanaam nopp garmi wala mhm. bët bëtu garmi. Mhm. soo nekkee garmi daal si lépp si lépp garmi lay doon. jërëjëf waaw yal na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin euh, borom këram aussi ñaan yi mu ko ñaanal. yàlla na ko fekk fa mu ne. amiin yaa rabbal aalamiin moo koy jariñ te ay waajuram yëg nañ ne gërëm nañ ko sant nañ ko waali aussi ñàkk na mi ngi soog a ñàkk. Mhm. ndax dégg naa sama làmmiñ ak euh, làmmiñam ak sama nopp mu ne tolloon na ay diggante ci benn kii bu mu organisé woon defe naa bersi bu njëkk bi. Mhm. mu dem ba mu metti lool ba ñuy yaakaar ne sax day capoter. Mhm. problème mu xaalis am. moom moo génne ci poosam douze million takk ko nii woo ko ba mu ñëw ne ko rakk demal nga doxal sa yëf. kon rak ñàkk na mag mag man waajur euh, koo xam ne waajur taxawaay waajur am ci moom. tabaarakallah ñu koy ñëpp nag. jërëjëf Ousmane bala maa ñëw ci yow damay ah. ñëwaat ci perlam rek ci boo ma ko mayee. Mhm. Euh, perlam tey boo demoon kër Bougane cité kër góor gi taxawaay bu rafet maa ngi fa fekk euh, awo Bougane. Mhm. Mam Marie Mam Marie. Mhm. ku ñëw moom ngay jaale.